المال والروغان اذهب إليه ولو بحفظك آية فالوصل يروي ظلة الظمآن عقب الصلاة احفظ ثلاثة أسطر مع كل فرض لا تكن بالوالي الحمد لله agsee ci genn wàll dañuy daal di ñëw dalal sunu gan Cheikh Abdou Khadir asalaamaaleykum. waaleykum salaam nu bàyyi la nga nuyoon teg way seetaan yi. waaw buñ gannaaw bañ la nuyoo ziar la euh, di la baalu àq yàlla taxawu nañu ba ñu woor ci jàmm. alhamdulilah li ñu ko ñaanoon may nañu ko alhamdulilah. Mhm. ñu ngi nuyu di ziar également ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel. Euh, di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm te nangul ñu suñu jàmm yàlla yëpp. tabarakallah amin euh, xanaa bi ñu la dalalee ba fay la nuyoo ba noppi ñu wax la nag léegi daa mel ni sa question yi tey daa bëri de. Hmm, bëriwul. ah bëriwul pratiquement benn la benn sujet la. waaw. sujet boobu wax nga ko ci sa ndoxteelu euh, développement yi. Mm-hmm. muy euh, conflit bi nga xam ne am na fële ca Palestine. Mm-hmm. waaw euh, conflit boobu nag jamono ji lu ëpp téeméeri doomu aadama génn nañ ci àddina. Mm-hmm. mu nekk conflit daal boo xam ne métti na loolu. ak liñ ciy gis ci image. naka nga gisee conflit boobu noonu. waaw jërëjëf moom kay 1945 ba tey ni la mel. 1945 ba tey ni la mel Israël mooy jëkki-jëkki songu Palestine mm-hmm. dóor leen ni bal nangu seeni suuf nangu seeni kër jàpp ne barab ba dañ fa war a génne képp koo xam ne palestinien nga mm-hmm. ku nekkul yëkkul war a waroo faa dëkk haykalu Suleymaan wax ne dañ ko war a toj mm-hmm. ndax ñoom ñoo ko moom te dañ leen faa dalal rek waaye xam nañ ni moomuñu ko àdduna si yëpp nag di leen seetaan waaye lu métti la ndax nii àdduna yi def du ko jeexal li ko jeexal mooy ñu wan leen langage bu dëgër benn ñaaral ba mere leen seen ambassadeurs yi nekk ci réew yi ñu delloo leen leen dem jëli seen yos ñëw toog waaye fi ne la ñuy rey métti ni ñu ngi ci ay téeméer te it jàkkaarloo ni muy jàkkaarloo yow nga dóor bal te kenn wax dara loolu métti na lool te bu ko jullit defoon fi nekk ni ay terroriste lañ leen di tuddee ne leen ay terroriste ngeen waaye ñi nag ñoom seen najaay tax na kenn la leen wax donc affaire bu méttee métti la ñoo ngi koy naqarlu ba fa naqar yam ñoo ngi koy métti lu fa métti di yam di jaajëfalit borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi te kenn ku ci nekk yëkkat ci kàddoom mm-hmm. ñu ngi ci am mbégte lool monsieur le président dégg nañ ko ci waaye na gën a dëgër jërëjëf na gën a dëgër oustaz wax nga ko euh, borom xam-xam yi nga xam ne wax nañ ci euh, ba ci état bu Sénégal bi nga xam ne euh, nekk na état bi nga xam ne mooy présider ci comité au comité de l'ONU bi nga xam ne. aussi mm-hmm. waaye itam comité bi nga xam ne moom mooy sàmm ak askanu Palestine. Mm-hmm. ñu gis ne réaction bi si foofu dafa xaw a yeex ci état bu Sénégal ba ambassadeur bu Palestine bi. Mm-hmm. Safwat Ibrahit. Mm-hmm. daal di euh, ñaan Sénégal pour mu jël si position. Mm-hmm. Euh, position boobu nga xam ne moom la ci Sénégal jël jël ba ngay wax ne président Macky Sall na xaw a dëgër. Euh, jàpp nga ne doy na fi mu toll nii. waaw daa tane waaye doyut. daa tane waaye doyut li tax mu doy mooy dafa war a dëgër. ndax ña ñu yore métti na. koo xam ne defu la dara dafa woor dafa bëgg a def xiyaamu layli dafa bëgg a def taraawix lu ngeen jotee nga dem fekk ci biir jàkkaam di leen football di lalli sa jaadeya di rey barey téeméer ak nangam waaye lu xew lu xew kon langage boobu war na gën a dëgër taxawaay it war na gën a dëgër donte li taxawaay bi baax na waaye bu gënee baax nu jël bu gënee baax mooy àgg ba ci nag def leen nangam mbaa ñun tañ mu def nangam loolu nag ñu séentu ci àdduna si yëpp nu lay war na def bu ñu ko defoon li mel ni du ko bel réew yi réew jullit yi seen taxawaay ci mbir mi waaw xam nga réew jullit ci àdduna si gars yi lañ leen a séddoo hmm. am na ñoo xam ne américains yi bu ñu nee on hmm. ñu ne on ba ñoom ñi muñ jee dugg ñenn ña anglais yi jël nañ leen ñenn ña français yi jël nañ leen ba ci Israël sax. waaw léegi ak du golfe yi. mu léegi nag bu ñu séddoo loolu séddoo bi nag léegi kenn ku ci nekk yaa ngay xool say intérêt. Hmm. su ma ci waxee dañ may wax nangam su ma ci defee dañ may def nangam mais sunu borom nee na. Hmm. wa in xiftum aylatan sunu borom nee na booy ragal ak ñàkk. Hmm. man may ñàkkal maay joxe. kon bu dara ñëwee dugg ja ko defee man ma réglé ko ni ñu koy réglé. ma shukran jërëjëf jërëjëf beneen taxawaay bi ngir jeexalee foofu muy taxawaayu euh, président euh, bu Turquie. wuute lool ak yeneen taxawaayu yeneen réew yi jullit yi. Mm-hmm. ñu gis naa chaque fois bu ñuy noot yenn jullit yi dañu gis ne dafay am benn leadership boo xam ne da koy taxawee moom itam taxawaayam boobu mu am. xanaa su ma su ma déggoon làkku turki. Hmm. dama ko ci làkku turki jaajëf. Hmm. xam nga lu tax. Hmm. Erdogan dafa gëm boppam. feexe ba réew ma gëm seen bopp. boo gëmee sa bopp fexe ba sam réew gëm sa bopp réew ma fi nekk nii day daal di tàmbalee dem su ko defee am na yooyu kenn du ko ci yàpp kere ba euh, président France bi waxee la mu wax moo njëkk xëy ne ne kii nañ ko jëli garab kii nañ ko jëli garab parce que ni ni àdduna si ni ci jullit di toll ngay wax yenn wax ji leen dañ laa war a jëndal garab waaye moom Erdogan dafa gëm boppam ba noppi fexe ba xeet wa gëm seen bopp est-ce que xam nga ñu ni ñu làkkee français ni ñoom lañ doon làkkee arab waaw di do di jéem a doxal réew ma ci làkk làkku arab waaye dafa dox dafa dem dem mun ñoo dem moom bi mu faloo muy leen hmm. waaye léegi est-ce que làkk bi mooy diine ñu ne déedéet mu nekkoon nañ fi bàyyi làkk wi te ne ci diine ji te làkk sunu làkk loolu leen tax dem Union européenne fi nekk ni bu Erdogan génnee mu indi leen problème. dañ koy topp sax di ko propagande pour na bi si waat lu tax noonu nag réewi Afrique yëpp li war na def képp ku njiitu bi réew da war a dëgër. du dëgg dëgër bu la fi jëlee nga nga nga nga texe dugg aljanna toog xaar gaa yi. ah loolu rek la. waaye sa sama sama gaa yi ñoom Thomas Sankara ñi ñoom Saddam Hussein ñi ñoom euh, tabarkalla ka ci woon ci Libi Xaddafi ñoom ñi ñooñu ay jàmbaar la ñu de. ak Nelson man daal la ca a ci Afrique du Sud Afrique du Sud. donc yooyu daal fi ne war naa des ci pénc bi moo daal ab ab ab ab leader ci réewam. day ñemee engagement fa isa azamta la suñu wax yonent bi fa tawakkal alallah del jël décision boo waxtaanee gars yi ba noppi nga ci man te def donc Erdogan loolu la def. adduna si yëpp fi nekk ni lu fi xew te xew ci jullit yi buy xëy di jaax kenn mënu lu ko dara ndax lan dafa gëm boppam fexe ba réew ma gëm seen bopp. jërëjëf si laaj ba am solo bi. jërëjëf ñu jeexale euh, ci euh, conflit israélo-palestinien boobu. Euh, daal di wax benn dernière question balaa ñuy ñëw bile yoon si ndenkaan bi. Mhm. bi weesu jotuñu ko laal. ndeysaan voilà donc mu nekk wàllu célébration korité bi. Mhm. ak ascension. Mhm. ci biir koor gi am na benn acte boo xam ne suñu mbokk chrétiens yi defoon nañ ko. Mhm. ba nga waxoon sax ne bu ñu waxati jaloo islamo-chrétien. Mhm. waaye nañu wax cohabitation islamo-chrétienne. ba ñu gis ne depuis boobu ñu bëri ñu nga commencé adopté terme boobu gis ne moo gën a adapté sax ak li ñuy dund. ñu gis ne fii ci ndogali borom bi. Euh, korité bi ñëw coïncider ak ascension bi. dafay mel ni dafay gën a firndeel euh, cohabitation boobu nga doon wax. waaw ñun day ba ñu amee indépendance ba léegi ci loolu ñuy dund indépendance ba léegi ci loolu ñuy dund ndax réew moo xam ne ñoo am indépendance Senghor yor ko yàlla la soob ndax mënoon nañu am indépendance am ko ko yor bu bokkee ci mbooloo mën naa am bu bu ko watee mu jëm foofa rek leneen mm-hmm. judd suñu borom baaxinu ci ci ci coobareem mm-hmm. mu am nu mu demee ñu koy doxal ba suñu jonni tey jii kon bu fekkee loolaat di dox mooy dox toujours day rafet toujours day rafet mhm. rafet gi mooy lan kii daa kii dafa am lu mu gëm mhm. nga am loo gëm sunu borom nee na même boo dëkku na ku gëm ab bant mhm. bul saaga bant bi wala tasubbu lazina yad'una min dunillah fa yasubbu llaha adwan bi ghayri ilmin sunu borom nee boo fekkee ku am ab bantam ne mooy yàllaam boo ko saagaa man mii lay saaga man yàlla lan lay tekki mooy nangulal kii lim gëm mu nangulal li nga gëm hmm. ngeen ànd dem jàmm ne ñooy li fee xeexu la ci sa diine bu xiifee boo amee lu mu lekk jox ko moom tam boo amee lu mu lekk mu jox ndax suñu borom nee na wa taamu la seen utul kitaaba xillul lakum wa taamukum xillul lahum hmm. man ngeen a bokk menn xar boo ko rendee mën ngaa lekk boo ko rendee moom mën naa lekk hmm. bu dee xar la bu dee bëy la bu dee nag la bu dee ganaar la donc loolu moo fi nekkoon man kay ni ma ko waxee keroog rek mooy li ma jaaxal kay mooy dialogue islamo-chrétien dialogue dialogue dialogue lan la ñuy dialogue pour mm-hmm. pourquoi baatu dialogue. réeroo amul. réeroo amul. Mm-hmm. wax naa la ko keroog ñaari jeeg yoo xam ne dañoo ne ci kër gi ku ay togg daa taaj. Mm-hmm. sama rob ñëw sukk kii ñëw sukk. benn bis nga ne kaay ma jubal la leen da leen bëgg a suukale <laughs> boobaa coow mooy tàmbali. coow mooy tàmbali <laughs> donc noonu